ak àdduna si yépp noonu mu ko daan defee it mooy nim ko daan defee yàlla na ko yàgg a def lool ñu yàgg ko fekke lool ay ati ati ati at yàlla eggale yéenam bi yépp len lu ci nekk mu amee ko nam ko bëggee barke Cheikh Khadim ak ci barab barke bis bu tedd bii nga xam ne ci la ñu jëm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala taalibe yi. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. mbokki yëpp. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. di leen seereel sunu cant. di leen seereel sunu cant. ndax gannaaw bisu bisub cant la. borom dafa waxoon ne dafa bëgg ko ko santale. kon nag. day cant yu bari. day cant yu bari. daje ci moom. ay cant yu bari day daje ci moom. bala nu koo santale. bala nu koo santale. dañ koy sant moom ba noppi. santal ko diggante ak boroomam. sant ko diggante ak bi. sant ko diggante boppam. sant ko diggante diggante ak moom. doora nag. doora nag. jublu ci ndigal li. nag jublu ci ndigal li. muy santale ko muy santale ko. santale ko borom. kon nag alhamdulilah ni ñu ko daan defee rek. kenn ku ne la nga mën lu baax. kenn ku ne la nga mën ci lu baax. nga am ci Pastef. jëfe jëfe jëfandikoo ko. jëfandikoo ko. ngir santale ko. loolu rek mooy li ci am solo. daa jiital alxuraan ji. naa jiital alxuraan ji. niñ ko daa niñ daan jiitalee alxuraan ji. kenn ku mënee. kenn ku ne na am posté bu bu ko mënee jàng ñetti kaamil. bu ko mënut it. te man benn it. ba tey baax na. bu ko mënut te man koo jàngalu it. ba tey baax na. la ca des lépp nag. na ma ko waxewoon woon rek. mën ci lu baax. kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def ngir santale ko boromam. loolu rek mooy li ci am solo. loolu rek mooy li ci am solo. te nag gën a góorgóorlu nag bu baax nag. ndax sëñ bi moom du du ku ñuy roy ndax mu ne su koo roy waaye nag mën nañoo def suñu kem kàttan boolewul sëñ bi boolewul dara ak boromam. lu yonent bi mënu ko joxoñ. mi ko joxoñ moom mi mu ko joxoñ yonent bi mu ko joxoñ. doxinam wépp. doxinam wépp. lépp jëm ci borom. doxinam lépp rek jëm ci borom. jëm ci yonent bi. kon loolu du kuñ mën a roy. kenn du ko jëm sax. waaye nag nañ def suñu kem kattan. nekkal ko ci ni mu ko bëggee woon rek. fexe mel niñ bëggoon mu mel ni mel ni. lu nu mën suñu kem bu nu mënee suñu kem kattan. lu nu mën suñu kem kattan. lu nu mën lu nu mën suñu kem kattan. gën koo jublu. nu gën koo jublu. gën a jublu suñu borom gën suñu borom. lu nu mën suñu suñu kem kattan. nu gën a dummóoyu adduna. gën a dummóoyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. ba ba koo sant. nekk koy nekkal ci li bëgg. da mu bëgg. li bëgg nag. li mu mooy jublu yàlla rek du mooy it àdduna bu ko defee diggante bi diggante bi. lu nu man suñu kem kattan. ci def ndiggal ci def li. bàyyi tere bàyyi yi. nu di ko def nu di kem kattan. kon loolu. mooy doxin wi nan ci góorgóorlu bu baax. loolu kon bay ba mu jox sëñ Bas. kàddu gi ndax ndax buñ duggee foofu. ñu xam fu ñuy yemee. ñun ñu xamante fu ñuy kon li ci des mën nañ ko jox sëriñ Bas rek mu eggale ko. kon sëriñ Bas eggaleel kaddu yi. ni ñu ko daan waxee ak ni ñu ko daan defee rek. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi llasi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana llah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wassalaatu wassalaamu ala man bu'isa mualliman sayidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli al ihsan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa qudwatil xalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ bi ak kàddu yu yi may yónni ci bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp te ñu xeebu lool xeebu lool ci jottali ko ci niñ ko war a defee waaye ni ko waxee léegi rek ñu jéem rek suñ kem kattan ndax kàddu yam daa wax ay kilifaam rek benn baatam moo gën suñ junniy baat foofa la ko suñ borom teg kon ñee ñëpp di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax dundam gépp fii mu wax ci diggam ak sëriñ bi rek foofu la ne dundam gépp ak jaamu yàlla dundam gépp liggéey Sëriñ Tuubaa képp la ko doy sox doyoo ko leneen kon yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak kàddu yi nag li ci jiitu mooy nuyu bokk jullit yëpp ñim bokkal lislaam ji yëpp di nuyu itam bokki réew mi yëpp di nuyu bokki taalibe murid yi nga xam ne nag ñoom la sañ digal sañ leen tere ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne li doon sabab si mooy sëriñ bi dafa def li ñuy i'tikaaf fii ci jàkkee sëriñ Mbacke Madina rasulullahi sallallahu alayhi wa feeñu ko ànd ak waa ahlu badrin yëpp sëriñ bi nag ba mu leen gisee amatut jàmm amatut dara lu muy xalaat lu may xemmeem seen cëriñ am mu wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama yitte jëpp ne mooy bokk ci rasulullahi xamal ko ne ko ñii de bokk ci ñoom faat na ndax lu ko daa daa jeex mooy tuur deret tuur deret amatut kon li fi des mooy jihaadu nafsi jihaadu nafsi boobu nag mu wax ko ne ko dañ la teg natt yu metti yoo xam ne dana diis lool yoo xam ne néewaa na koo ne buñ ko ko tegee mënoon naa nekk wàllu àgg yàlla waaye da ak mën naa dem bari ki ko wat sëriñ bi ne ko ruugi di laa bindut ba xam lu mu attan lu attanut waaye bu ko attanee rek jom ji attan ko mu ne ko nag natt bi kenn du la ci dimbale kenn du la ci jàppale mooy astaxlisoo li nafsi waaye sëriñ bi daal di sartante mu sarte moo ko ne kon nag ñaar dana ci am dëkk bii nga nekk muy Touba dan ko koy daal di génn ndax yaay ñaanoon sa borom ne ko bu fi wenn ay mën a tabbi kon aw ay mun laa jugee di fenn di la di la fekk ba jaris it am na sa waajur yu ñuy wax Serigne Boussobe mi ngi dund te nitu yàlla la te mi ngi jëm jël ay ñaan di ko jëmee ci yow li fi mi ngi dund natt bi duma ma agsi ci moo war a bi daal di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ngir xaar fa natt bi nattu bi nag Serigne bi def ko rasulullahi xamal ko ne ko bi ne. mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp lañ lay booleen muy nattu yu saahir ak nattu yu baatin saa su bis bi accès nattu yi ñu la tegoon day dañ koy fulaat ba mu yokk sëriñ bi di ko dékku di ko dékku di ko dékku ba samaani xëy jinni yi mat ba nattu bay jeex nag ci at mu ma sëriñ bi wax ne rasulullah da koo xamal ne ko mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp maase nañ dajaloo ngir jéem a seet nu jëme ci sa ji te yaakaari mbooloo du ma ko tas kon nag na nga seet nooy def sëriñ bii nag mu am jomi jéem a dékku natt bi nee na ba bañ bañ songee jëmm ji ba jëm si ci moom nag alxuraan soppaliku jëmm dox di gëm ñoom suñ boobaa xamal ko ne ko foofu la na nattu bi di jeexe waaye li ci jëkk a fayee mooy waa banoo Israël yi ngay jamonoonteel yëpp ndax. ku yàlla sàkk ku ne bindal na këru àjjana bindal këru sawara mboolem waa banu israel yi nga jamonoonteel yëpp seen kër yi ñu leen waajaloon yëpp may naa la ko Sëriñ Tuubaa ne ko defaat naa ko addiya saxaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne ko man de dara du jóge ci man di dellusiwaat sëriñ bi nag ne ko kon dencal ma ko ba ëllëg ndax sama waa kër yi jombale naa leen àjjana juñ xaroon kenn di leen ko jox ñëpp laa fàggul àjjana kon nag denc na ko ba ëllëg bu demee ba àgg bis penc képp ku ma ci war dimbale ma dimbale la ci kon sëriñ bi kenn mënu koo fay lii jaada rabbi bil manasili lada taxarrubi mutayiban lil xalada inni jahaltuha hadaya lil shahab radiya anhum man xamani han shahab kon mooy kër yooyu nga xam ne joxoon ko kon nag bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci sëñ bi digle ñu sant la ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla tàmbale ci ganaar ba ci gileem lu ci mën na ko ci defar den nag mi ngi dajeeg ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ut wii eh, sëriñ bi neen moo koy fàttali ñëpp di ko yëgal bokk julli yëpp di ko yëgal bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoom la sañi digal sañ leen tere di ñaan nag bis ñu àgg ci ak xam ne ne Serigne Touba bisam bi ñëpp ko bokk mboolem ko di julli rek ndax ni mu ko waxee rek wahabta lii kaw na jamihil awliya ahibati fii ka ananta nayliya def nga ci mboolem koo xam ne wàllu la rek ak cofale sama digga moom loolu nag moo sar ba adduna sëpp maase ci bëgg ko kon nag sëriñ bi naan mi mi ngi ci soññ taali bi yëpp di leen soññ it ñi mu sa ñi mu bokkal sëriñ Tuubaa di leen sant ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal di sant mbokk taalibe yi ci liggéey sëriñ Tuubaa bii nga xam ne ànd nañ ko moom te li ci mujj ñu nekk ci ba nëgg mooy daare Cheikhul Khadim ji nga xam ne tàmbali woon na ko ba sori na ba la ci des bëriwut waaye ba nëgg ni ñu ngi ci liggéey ba mu ngi leen di sant ci li weesu lépp. di soññaat bokk taalibe bi yëpp ñoo xam ne liggéey bi du àgg ndax murit moom du wàcc du noppalu ndigal lu jeex rek leneen ak siwaat kon neen na mi ngi soññ bokk taalibe bi yëpp ak ñi bokkal sëriñ bi ak ñi bokkal yoon wi yëpp ni mu sant bokk jil yëpp ndax moom xam na ne fii mu toog dafa doon sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ñëpp dafa nekkal la sëriñ Tuubaa doon naan naan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami'al wara yaa hadiyan rada foofu la toogee mooy nekkal fi adduna sëpp kon mi ngi ko yëgal adduna sëpp di ko yëgal bokk julli yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu samini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali nafa li gayri llahu qablu sindari bi ahli badini l usudi kadari salaatu llazi fi kulli sahri